rahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf al anbiyai walmursalin sayidina walana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi rudani wa tamkin bokk asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi am mbégte di dalal euh, professeur Daouda Ndiaye fii ci jumaay Tuubaa ji ci turu daaira muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ni ngeen ko gisee léegi mu waxta dalal ko waxtaan ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxawee di ko jëmale ci doomu aadama yi rawatina jullit ñi rawatina taaliba yi Sëriñ Tuubaa yi ñu gis jëf ju am solo joo xam ne jëfoon na ko ci jumaay Masaalikul Jinaan ju demee nii euh, bërki démb rek euh, yàggul daa ci ginnaaw ñu dajeeg moom Poroxaan mu def fa jëf ju rëy nii tey jii mu ñëw ci biir jumaay Sëriñ Tuubaa ji indi fii jumtukaay yu am solo yi nga xam ne andi na ko fi muy ay masque ay sel ay sajaada am ndox ak addiyam yoo xam ne daf ko barkeloo ci liggéey bi Euh, loolu nag ni ko sëriñ Afia waxee léegi rek ñu di ko naw di ko kañ di ko ci gërëm di ko ci sant itam di ko waxit ne ko noonu euh, nangul ko ko ak seere jëf ji rek lañ man waaye yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa mi tax mu di ko def ñoom ñoo amee ñoo koy fayal boppa te Sëriñ Tuubaa nag ni ko Sëriñ Afia waxee léegi képp ku ko mas a xëyal mbaa nga gontal ko yaa ngi jot résultat ba fii ñuy wax yow te yomal xeyam ñëw ko te gëm nañu ne bu yomal xeyam ñëwee lay raw ndax àdduna du gërug pay kon lu ñu fa gis rek xéewal la yu dolli ko ci fay gi waaye du fay gi fay gi moom ëllëg la ni ko sëñ Moussa Kado waxee rek euh, euh, lii moom aw ban la waaye la ca ban ga moom junni ñay la yoo xam ne euh, dara ñëwagut ci àdduna kon nag professeur ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ne fii mooy daa daaira Muxaddamatul ma bi nga xam ne ñoo yore jumaa yi Tuubaa ji sëriñ Abdou Lahad Bousso mii moom mooy yore bànqaas bi nga xam ne moo yore wàllu social ak relation extérieure ci biir daayira bi moo tax mooy taxaw yàlla waale itam wàllug wér yaram moo tax bi nga indee jumtukaay yi moom ci turu mboolem bureau daayira bi moom lañu àndal ngir mu dalal la nga jébbal ko yi nga xam ne moom la jébbale ginnaaw sunu kilifa nag sëriñ Afia mi ngi taxawoon ñu jël lépp teg ko ci loxoom waaye ñu ànd ak moom moo tax mu indi ci barab bii nga xam ne dañ ko waajal ci jumaa ji ngir man fii faj ñi nga xam ne dañoo ñëw ci jumaa ji dara dab leen fi paj mu njëkk su man leen féetee toppatoo leen ba man leen a jàllale fu ñu leen di jàllale loolu nag ñu ngi ko daan def ci jamonoy màggal gàmmu ak événement yu mag yi xëy na sax nag su demoon ba euh, kattan gi mate koy sax dana danañuy def ajjuma ju nekk ñu fexe ba am ko fi nekk di faj ginnaaw àggaguñ foofu nag fi ñu tollagoon foofu lañu tollagoon waaye nag mi ngi nii ginnaaw yow yaa ngi yëngu ci wàll googu xamal ne fii moom sa barab la ndax barabu murid yépp la te boo xasee ba bokk ci murid kenn ëppaleetu la fi euh, fii nag niñ koy faral di waxe du leen kenn lépp ñëpp lu nay ku nee ngi ci du leen kenn lépp ñëpp lu nay ku ngi ci euh, Sëriñ nag waxoon na ne ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci suulu itam su mara détail yi ba faw jàpp naa ne kon murid bu nekk bëgg na cee feeñ jullit bu nekk bëgg na cee feeñ loolu moo waral xalifa Sëriñ Tuubaa bu fi ñëw nga gis ne na fi jooyal ab liggéeyam ngir bëgg cee feeñ ci noonu ko Sëriñ Tuubaa waxe woon kon tey boo fi feeñee nii dañu ànd ak xel mu dal ànd ak yaakaar ànd ak wóolu ne suñu euh, borom daf laa nam ma dimbale moo tax mu xiir la ci nga di fi jëf yow ak ñi nga ko àndal ñëpp kon nag ñu ñaan dimbal loolu yàlla na nga ko jot boo ci jotee yàlla na nga ko jariñoo yow ak képp koo àndal ak képp ku la jàppale ci liggéey bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi sant bu baax di wax eh, alhamdulilah rabil aalamiina bisimilah rahmaani rahiim bi ma yàlla indee ci barabu sëñ Touba eh, ma fekk fi ñu sedd ñu tedd ñoo xam ne ñoo fi teewal eh, Serigne Bamba teewal fi sëñ Muntaxa ci barab bii mu dénk leen lépp sëñ Abdoulahi ak sëñ Abdoulahad Bousso yëpp. Euh, wax dëgg yàlla euh, seen taxawaay dégg nañ ko démb tey soog a ñëw ak ci ndigalu suñu aafiya soo bi nga xam ne moo leen jox ndigal ngeen def lépp euh, ni mu waxee léegi duma ci dellu siwaat mais mu xam ne rek taalibe bi ñu doon ñun mbégtale bis bu ne ci jamono ju ne ñu liggéey sëñ Touba te yàlla rek tax ak mbokku taalibe yi te yéen mënuñu lu leen di leen sant yéen ñu fi toogal mbokku taalibe ci ci jumaa ji di ko liggéeyal sëñ Touba ñun ñoo fi waroon di nekk yéen fi nekkal yeneen fi nekkal donc ñun li ñu mën rek booy fu ngeen gis ne nag noonu la rek ñu topp leen ci te lépp fi ngeen di teg seen tànk rek yoon bi yëpp mooy yoon yoon bi sëñ Touba digale la. donc moo tax bi ngeen indee ci bërëb yi bu ñu comme ni nga waxee léegi bu ñu ci affaire sijaada ak yële ak ak ak gel yi ak masque yi ak thermoflash ci bërëb bi ngeen jagle pour wér-gu-yaram te ni nga ko waxee loolu loolu moom defe naa ku ci xam dara mën ci dara rek dañ cee war a taxawu et surtout que nag ñu ñu bokk ci kër gi moo tax incha allah nee na maa ngi naan su ma ko xamee woon noonu de même bërëb bii tey ci màggal gi de danañ fi commencé def ci liggéey ci màggal gi waaye liñ naan euh, <coughs> sant yàlla rek bi ñu ko yàlla xamlee ne lii am na fi tey muy barab bu ñu fajee soxna yi ak bu ñu fajee góor ñi nga xam ne euh, ku fi dara jot ci macha ma ma macha allah mën ngi ñëw ñu ñu xool la fi premier soin yi ba nga dem gis naa ni ñu ko defee moom. xalaat bi rek sant yàlla la xalaat bi rek sant yàlla jógee ci jàkka ji jumaa ji nga xam ne ku fi jóge yentaay sa xol dina sedd ba mën ngaa tàggoog sa sa sago ndax contentement ndax fees ci xol ci yàlla donc lii ñu teg ko fi man du may def lu sant leen ba pare parce que ñun ñëpp ngeen ko defal parce que kër docteur ku ko defal liggéey ñun ñëpp nga ko defal te di leen wax ne ah wax nga ko léegi sëñ lay euh, sëñ Touba moom boo ko lebelee mu fay la kooku moom du xaar suba bi ngeen xoolee ni ñu ko defoon masalikul ñu naan yomb nag yombul noonu la ñu ko yombale bañ def ko Poroxaan noonu ñu ko yombale bañ def ci yeneen kër diine noonu la ñu ko yombale tey bañ def ko fii ci ci Touba ci màggal gi donc mooy euh, euh, boo loo ci dugal rek mu fulaloo ko te ñu di xam nañ ci dara boo xoolee li ñu dugal ren euh, tey ci màggal gi ci Poroxaan bi boo neyoon benn juróom-ñett juróomi yoon yi la ñu indi tey te jëf ñëpp xam nañ ne li ñu dugal Poroxaan macha allah tey loolu la ñu ful juróomi yoon ndax sëñ Touba moo ñu may doole loolu donc fii ñu teg ci kër docteur gi nag jàpp leen ne incha allah xaw ren de mais à partir de maintenant ni ma ne dinañ fi indiwaat sama équipe ñu xool lépp luy garab lépp luy lu nga xam ne docteur kër doctor dina ko soxla fii ci barab bi muy ay ay ay faj yenn faj yi muy ba ci ku ci am dagg-dagg yenn gaañu gaañu yi bu jaree sax ñu wut équipement yoo xam ne pour yenn yenn xool yenn yenn euh, examen yi la dinañ ko fi indi incha allah rabi xool li ma leeru dem mooy kañ lay doon heure bi ñëw xam ne fii ah euh, lu bëree ngi fii te bu baax kër docteur